sataarul uyubi falaa sëriñ bi daa wax ne samay sikk samay ayib neena na képp koo xam ne boroomam xel la ku am ab cër ci yàlla rek ba am xelam ubbi ko samay ayib moom ump ko daal dinay leer ci moom waaye nag yàlla sama borom moom day nëbbu katub ayib day suturaal katub ayib azaalu taaliba sitrin qaa'ilan wajila astaxfirullaha sataaral uyubi ala ahlil uyubi wa munjihim minan niqami mu ne moo tax nag man duma deñ mukk te sàkk sutura ci moom ndegam moom loo bari bari sikk loo bari bari ayib mën na laa muur mbalaanum sutura ba kenn du xam say sikk du ma deñ mukk di sàkku ci moom sutura soosu maa ngi am njàqare tey wax ne maa ngi jéggalu yàlla mi suturaal ayib yi ci ñi amee ay ayib di leen musalit ci aw tiis ak mbugal yàlla mi ngi xam ne daal moom mooy nëbbal ñi am ayib seen ayib di leen musal ci aw tiis musiba maa ngi koy jéggulu nutqi fudulun wa qalbi nuura lam yatuqi wa daydani gayru mamduxin fa yaa xumuqi liy génn ci sama làmmiñ ma di ko wax ay neen rek la man waxuma leen lu tiyaaba nekk sama xol bi it taq gi ak tilim gi tax na musul lenn ci leer yàlla yi maanaam ñemul ay leer sama xol bi ndax tilim gi mu tilim sama aada mooy habitude bi ne ci man kenn gërëmu ko ñépp ko sib kenn bëggul habitude bi ma ame ngir rek jikko yi ci nekk ay man yéemu naa ci sama ndof gi aqulu mustaxfiran fi leri ida araqi astaxfirullaha min nutqi wa min xuluqi wa sayni ni wa min shakli wa min shiyami kon nag maa ngi jéggalu yàlla ci guddi di warum cekkaay maanaam daal tëdd naa guddi mënuma nelaw ànd ak jaaxle lool ngir sama sikk yi ak bàkkaar yu bari yi ci man may wax nag ci guddi googu naan maa ngi jéggalu yàlla ci li nga xam maa ngi koy tudd ci sama làmmiñ te amut njariñ di ko jéggalu ci sama melokaan yu doy waar di ko jéggalu ci samay mbir ñaaw gi mu ñaaw di ko jéggalu ci mbooleem samay jikkook samay melokaan wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu